asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuh ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sëriñ Tuuba di ñaanal suñu kilifa sëriñ Muntaxa Bachir mu yàgg fi lool te wér ba naal yim am ci yoon wi yëpp mu eggale ko ak jàmm ànd ko ak ñun ñëpp kenn bañ a wute Sëriñ Abo Baraka ñi ngi jël kàddu ci turu président de la république son excellence Macky sal bi nga xam ni moo ñu yebal fii ñu jottaleel ko ziaram ci bés bu tedd bi ak borom bés bu tedd bi ma ànd ci ak délégation bi ñuy lem léegi ma mën cee lim monsieur le ministre conseiller Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma madame le ministre conseiller soxna Awa Diop mais lim ci aussi monsieur le gouverneur de la région de jurbelle préfet du département de Mbacké ak sous-préfet arrondissement waaye lim ci aussi kilifa politique yi ak coutumiers yi nga am ñu ànd ak ñoom ma lim ci monsieur le directeur général Gallo Ba maire de Mbacké waaye lim ci aussi Serigne Abdou Lahad Ka maire de Touba waaye mën cee lim képp kuy haut conseiller député membre du conseil économique social et environnemental mu mën ci lim suñu baay baay Maguette Jaxate suñu baay baay Mor Ndiaye waaye lim ci aussi suñu xarit directeur Bara Gueye lim ci délégation bi ci gàttal responsable politique yi nga xam ni moom lañu àndal moo mën ci lim Morlo ak Moussa Thioune sëriñ bi maa ngi nuyu kilifa yu tedd yi tekk ci baas bi yépp kilifa diine kilifa aada kilifa politique di jottali nuyoo président Macky Sall aussi mbooleem kilifa yooyu teew fii wax ji dina gàtt lool sëriñ bi ndax ñi ñu jiitu ci kàddu gi daanaka tënk nañu waxtaan wi li ñuy def rek mooy jottali la message yu président la république muy sant bu baax waajuram sëriñ Mountakha Bachir Mbacké ndax daje bi ñu def nii tey lottoon nañ ci ñaari at ci gannaaw ci def ko waaye jàpp na ne taxawaayu sëriñ bi ci wetam ci saayir ak ci baatin may nañu tey ñu daje pour màggal sëriñ Fallou Mbacké donc président mi ngi yóbbante sëñ sëñ Bachir ci waajuram sëñ Muntaxa di ko sant bu baax ci taxawaay boobu gis na ñaan yi ba tey ñu mën a daje fii màggal sëriñ Fallou Serigne Abo président la République mi ngi lay jottali ziaram di la jottali aussi ñaanal la ci bés bu màgg bii ñuy màggal suñu waajur yooju bés bi nag liñ ciy wax moom du bëri ndax sëriñ Serigne Mamoun mii jiitu ci kàddu gi leeral na ko leer bu naññ ñu jàngaat fi ay misaal balaa ñuy jóg xanaa jàpp ci rek ñaar ci tënk ba ñett bi njëkk li sëriñ Maamun wax ci sëriñ Fàllu sa waajur wu tedd wa jàpp nañ ne loolu yépp soññi la ab jàjj la ci ñun ñi ñi nga xam ne ñoo doon ay taalibe ndax sëriñ bi kat su amee loolu yépp jàpp nañ ni dafa jënd lépp ak taalibe ba suñ boroom defal ko lim ko defal kon boog bés bi bésu fàttali loolu la waaye soññ la ci ñun ñi nga xam ne ñooy taalibe di ñaan yàlla mu def ñu dëgg dëggi taalibe sëriñ bi sëriñ fàllu géej la wax nañ ko léegi xanaa ñu jàpp rekk ne dëkk bu sell bii di tuubaa néew na foofu doxal sa bët te gisoo fi li sëriñ bi samp walla mu naal ko waaye loolu nag ab soññ la it ci képp koy citoyen ñu jàpp ne liggéey bu réy bii mu def ci jumaa ji engagement ak pas-pas moo ko def loolu nag war a nekk ab soññ ci ñun it ci lépp loo xam ne ñu ngi ciy dugg ñu ànd ci ak engagement ak pas-pas na ko suñu sëriñ bi jàngale woon ma daaneel rek sëriñ bi ci lenn loo xam ne nii sëriñ Maamun wax na ko ci sëriñ Fàllu mooy njaboote ñépp ñi ñu bokkal diine ak ñi ñu bokkul diine ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew président Macky Sall nag mu ngi sàkku nga ñaanal ko Serigne Abo ndax foofu la teg tànkam mooy woo Sénégal yëpp ci ànd ñu liggéey senegal te jàpp na ne bés bii lépp luñ ci ñaan muy bésu yonent bi di bésu Serigne fallu Mbacké jàpp na ne suñ boroom dina ko nangu kon boog président mi ngi yeesal ziyaareem yeesal kóllëreem sa diggante ak yow waaye sa diggante ak njabootu sëñ Fall yépp ak sa rakk yi moo tax président mi ngi sàkku ñaan ci bés bi nga ñaanal ko ba lépp li nga xam ni moom it naal na ko ci dëkk bi suñu boroom may ko mu eggale ko ak jàmm mu ànd koog kilifa diine yépp ànd koog baayam bii di sëñ Muntaxa Bachir mënuma daalal nag te jottali ko sant ci sa jëwrin ji sëriñ Abdou Fatah Mbacke mu ànd ak sa rakk yépp président mu ngi lay sat di la gërëm di la ñaanal di ñaanal njaboot gépp di ñaan yàlla ñu teewe ko ay doon yu bari mu nekk yokkute ci réew mi yépp ci àdduna bi yépp asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa